rek mooy gën a fës ci waxtaan wi Sud Quotidien faylu ko ne sécurité wàllu jàmm ca Casamance lu jëm ci wàllu trafic de bois wàllu drogue bi nag loole lépp Diomaye fay dana ci waxtaan tey jii ca Banjul ak kii di Adama baro politique bu jëm ci wàllu dëkkandoo gu ànd ak jàmm ci suñu diggante Gambie loolee bokk na ca la ñuy waxtaanee mook Adama baro laas yëglekaay dellu siwaat ci conflit bu Casamance daggum bant yi jaarul yoon bi kaaraange gi ci diggante ñaari dëkk yi nag bokk na ci li nga xam ne rek dana gën fës ci waxtaan wa ñuy amal tey jii nag ci tukki nemmeeku boobee njiitu réew mi di amal ca Banjul Banjul direct news nag daal di xam ne ni moom président Bassirou Diomaye Faye tey jii nag waa Gambie daa ñu am gan gu leen di seet si ginnaaw yëngu-yëngu yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci wàllu koom ci diggante ñaari dëkk yi nag bokk na ci li nga xam ne rek dafa jëm ci wàllu mbay mi wàllu napp gi wàllu càmm gi ak li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu commerce énergie hydrocarbure loolee lépp daañ ci bàyyi xel mu di ab tukki nemmeeku boo xam ne rek bu xaritoo lay doon waaye tamit nag nu ñu mën a def ba liggéey rek bu ko defee ñu rataxal dem lante beeg dikkalante bi ci ñaari dëkk yooyee nag ci jamono ji nag waajal ab conférence islamique en Gambie ñaari jiitu réew yi fas yéene nañoo lëkkale seeni doole nag ngir fexe ba amal ay jéego yu am solo ba organisation boobee événement nag mën a réussir 24 heures dellu soit ci liggéey yi nga xam ne rek war nañ koo amal niki samedi ji nag foofee ca Banjul soxal nemmeeku bi nga xam ne rek moom président Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy amal yéenekaay bi bind ci xëtam bu njëkk ne Diomaye ma ngay fëgg buntu baro wàllu diplomatie wàllu fraternité ak bon voisinage bokk na ci li nga xam ne rek moo sabab tukki nemmeeku boobee njiitu réew Sénégal di amal amal foofee ca Banjul l'observateur xëy dellu siwaat ci gàmbeek yokkute bi nga xam ne rek amal na ko ci douane bi nga xam ne rek moom la ñuy teg ci ciment bi bàyyeekoo ci Sénégal yéenekaay bi di peeko cadeau empoisonné de Baro à Diomaye état bu Gambie nag ma ngay imposer importateur yi nga xam ne rek dañuy bàyyeekoo fii ci Sénégal ngir ñu yokk droit yi nga xam ne rek moom la ñuy fay ci wàllu douane mu toll ci 500 pour cent le quotidien yëglekaay na ginnaaw report bu exploitation bu JETA jëm ci wàllu gaz bi nag Nouakchott ak Dakar nag ñu ngay gën a boole seen ay position jëm audit yoo xam ne rek daañu ko amal ci wàllu coproduction yi la tribune yëglekaay ci jamono joojee nag ma jëmale ci alerte yi nga xam ne rek ma ngay bàyyeekoo ci ay expert bokk na ci Seydi Ndiaye mi nga xam ne rek ma ngay àddu ci wàllu pétrole ak mu ne nag duñ ci am dara atum ren ji nag ci yëglekaay bi muy xam ne ne nag jarul ñuy wekk suñuy yaakaar ci suñuy ressource ngir mën a suqaliwaat keesu état bi leeral yi nga xam ne rek moom économiste bi indi na ko ci nag yër leen boobee yëglekaay Le Soleil yëglekaay dellu suwaat ci wàllu croissance économique bu Sénégal ci atum 2024 yokkaat waa FMI nag ñoom ba naga ni si ña ngay maintenir nag lu jëm ci seen ay prévision yéenekaay bi nag di xam ne ne dëkk bi war naa enregistré nag taux bu ci topp ci ginnaaw Niger mi nga xam ne rek am na 10 virgule 4 pour cent Côte d'Ivoire Gambie ak Éthiopie ñoom ñooñee nag topp ci ku ci nekk am 6 virgule topp moom mi am 6 virgule 0 pour nag dellu soit ci wàllum pacte de Paris 4P bi nga xam ne rek ma nga ca Washington yéenekaay bi ne mi nga xam ne rek dem na teewee ji réunion bi nga xam ne rek ñii di waa BM ak waa FMI doon nañ ko lancé moom mi fi nekkoon président de la république bu Sénégal daje na fa nag ak kii nga xam ne rek moo di ministre bi di Cheikh Diba ak Abdourahmane Sarr niki dimanche bi nag la ko Emmanuel Macron war a dalal foofee ca Paris addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di l'info moom nag ci wàccaayu tabaski bi ca la xëy daal di def taxaw seetlu ne gouvernement bu Sénégal moom nag jamono ji soobu na ngir ñu am xar mu doy ci feetu tabaski bi yéenekaay bi ne régime bu président Bassirou Diomaye Faye nag démb ay matukaayam nag jëm ci mesure yoo xam ne rek teg na ko ci wàll wi ci ab lettre boo xam ne rek démb lañ ko daal di fësal état bi nag ma ngay sàkku ñu daal di woyofal nag lu ci wàllu contrôle yi nga xam ne rek dañ koy amal ci kaw camion yi nga xam ne rek ñoom ñooy indi xar yi fii ci biir Sénégal loolee nag daañu ko door fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ba ñaari fan ci weeru août atum 2024 gouvernement bu Sénégal itam nag sàkku nañu daal di gën a woyofal nag taxi yi nga xam ne rek dañ koy teg ci kaw xar yi waaye sàkku na itam nag camion bu nekk ñetti sàmmkat daal di fay nekk nag ngir mën a wattu jur gi mu di ab mill 2002 bu 1094 bu 4 novembre 2002 jëm ci police sanitaire bu animaux domestiques yi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ma ngay sàkku nag ñu daal di respecté nag lépp luy mesure yi nga xam ne rek ànd naag wàllu wér-gi-yaram wàllu cet geeg kaaraange gi nag ngir ñu mën amal nag opération bu jaar yoon ci wàllu tabaski bi Vox Populi nag dellu siwaat tey jii nag ci première tabaski bi nga xam ne rek gouvernement bu Sonko jamono ji nag bëgg na ñëpp daal di am gàtt nag moom Elimaanu jëwriñ ñi nag ma ngay xam ne ñetti mesure yoo xam ne rek war nañ koo tax taxawal ngir mën a am xar mu doy fii ci réew Sénégal yër leen boobee yëglekaay mu fekk nag jamono jooje éleveurs yi ñoom ña ngay xam ne ne nag daañu am million ci ay xar ci biir Sénégal jeexaleeg Les Échos yëglekaay mi dellu soit ci ab film bu doy waar boo xam ne rek am na ca Anne Maris ay defkatu ñaawteef nag ñoo song benn kër diggu bëccëg mu di ay cambrioleur yoo xam ne rek dañoo gànnaayu ba fees dell nag daal di encagoléwu nag yéenekaay bi ne yóbbu nañu fa lu toll ci fanweer ci ay millions ak ay appareils électroménagers fi mu toll nii nag amal nañu ab plainte contre